السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شيخنا نيغلي ñaanal yalla tabaaraku ta'ala yalla yalla guddal sa fan te barkel ko sàmm la bërile ku mel ni yow ci réew mi ñun ñi nga xam ne ñu ngi déglu sa leçon yi ak sa dars yi suñu borom tabaraka taala wërsëg ñu ñu bañ a yem rek dars bi macha allah ñu daali ko jëfee di ko appliqué li ma bëgg laaj xëy na dafa xaw a génne tuuti ci dars bi mais waxtu bi moo ko laaj dafa am ku wax ci mbiru alquran lu doy waar fan yi ñu daal di ko déglu ci réseaux sociaux yi léegi damay laaj mawqiful julit la shakka wax ji mu wax moom boo ko kiyaase ci alquran ak sunna wax bu doy waar la wax daanaka kéeféer lay yóbbu nit ku mel ni kooku gannaaw buñ ko bañee inkaar lool est ce que julit bi bu dajeeg moom am na droit individuellement ne comme wax na li ci alquran amna droit dal ci kawam wala loolu mbiru ñi nga xamne yàlla tabaaraku taala may na len doole lu melni ni état wala yoon ñu dal di soppi mo bëgg dal nga baaxe ñu ci mel non ndax talibé lu xew rek dafa war delo ci borom xam-xam yi laaj leen ci lool di jéggalu bu baax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat waaw dëgg la loolu actualité la bu am boo xam ne rek lu bon moom daanaka du jeex te it gën a bari li baax te jamono yi nekk mi ngi am xëy na duñ ci waxe ci wet gu jëm ci googu ngay junj ndax mbokk yi ñu ngi ciy waxtaan moom ci ci anam gu yaatu association yeeg yëpp xool ban taxawaay lees ci am loolu moom liggéeyu liggéeyu mag ñi la ñu ngi ciy liggéey sooy boo xel dal ci wet googu waaye mu aajoo ñaari mbir yu yu mat a taxaw seetlu ci mbir yu demee noonu menn mi mooy e, atteb loolu yi mu def maanaam saaga yàlla saaga alxuraan kooku kéefër la boroom xam-xam yi dañuy wax ne boo demee ci biir buntub li ñu tudde kitaabu ridda muy ñi nga xam ne dañoo tubbi dafa am xeeti kéefër yoo xam ne nit ki dañuy wax ne mën naa wax baatu kéefër te kéefër gi du tàbb ci moom wala mu jëf jëfi yéefar te du tax mu nekk ab yéefar waaye loolu dafa am exception dañ lay wax ne képp ku saaga yàlla wala bi yonentam wala alquran loolu amatutub charte génn nga diine ci mu jeex amul charte kenn du wax naan lii kéefar la waaye kéefar gi mën naa bañ a tàbbi ci kawam wala nangam gi ma déedéet ki yorum xelam naanut sàngara dofut jinne jàpp ko di lek di naan di doxi soxlaam di deme ko ñëw jekki bam neex ko mu xëy saga alquran saga yàlla koko mu génn ci diine l'islam su tuubaatul delsiwaat ci diine l'islam koko du jullit loolu mooy atte boobu beneen bi ci des mooy sécurité am réew dafa am yu koy yu koy garde luy tax réew mi mën a am sécurité su nit mënee jóg taxaw ci réewum jullit 98 pour cent ci ay jullit nekk ci am réew di jàng alxuraan di ko mokkal guddi ak bëccëg nekk ci loola di ci nër nëri ñi nekk ci alxuraan ak sunna di ci woote jàkka yi imaam yi yépp taxaw doom aadama mënu bëti ko taxaw wax kàddu yu ñaawe noonu jëmale ko ci alxuraan jëmale ko ci sunu borom tabaraka wa taala mu wóor la ne bu ko tubaab ya defoon ca bitim réew nun dañuy jóg di naqarlu ak di di def ay manifestation kenn ku bokk ci nun ci askan wi di doom aadama di làkk-làkk bi nuy làkk yor couleur bi nu yor xëy wax ju gën a ñaaw wax wax ju gën a ñaaw la tubaab ya doon wax lu mel noonu état moo ci war a jël responsabilité ndax su loolu nit ñi danañ jëlal bopp seen bopp seen responsabilité bala ñu ko def nag ku mel noonu ku wax lu mel noonu ba mu daaneelee rek dañ ko war a woo mu ñëw ñu téye ko yëgal léegi it kii wax na loo xam ne lu ëpp lu tey bëkk démb rek fii ci Mauritanie waaye ji nga xam ne dafa bind ci Twitteram wax ci yonente bi wax ju ñaaw fan la mujj boroom xam-xam yi ci seen bopp ñoo daje jàngat lim wax génne ab fatwa ne lii ku ko wax lii mooy ab atteem dañ ko war a rey jox ko nguur ga ne leen loolu moo ci des su tuubul dañ koy rey waaja num def dafa déclaré daa bëgg a tuub borom xam-xam yi dajaloo def seenub jotaay ñépp toog def seeni discours ba àggal ñi jox ko mu jóg taxaw ci seen kanam ngañ ñi jëfam ja naqarlu ko tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci kanam nit ña ba noppi jël garanti ne lu mel ni duutu ca dellu loolu mooy jàjj doomu aadama yi su ko defee ñi ñongal diine l'islam aar ko loolu mooy li jaadu kon daal mbir maa ngoog duñ ci guddal lool lool mbokk yi ñu ngi ci liggéey ñu ngi xool jàpp nañ ne lu ci gën rek incha allahu mbokk yi daañu ko taxawee ci wàllu euh, loo xam ne mooy li leen loi yi nekk ci réew mi may danañ ko jëfe cheikhana jazakum allahu xeyran wa xafidakum wa jaala darsa fi misaani xasanaatikum kii dafay laaj euh, dafa tudd nag am mbooloo ne ñoom dañuy ñëw ci seeni jàkk di leen soññ ngir ñu génn génn goo xam ne ñu ngi koy tuddee xuruj fi sabilillah maanaam génn ci yoonu yàlla euh, bëgg ñoom ñu ànd ak ñoom génn léeg-léeg ci ñetti fan léeg-léeg ci juróom-ñaari fan léeg-léeg ci fukki fan léeg-léeg ci lu ko ëpp teg ci di leen wax ne xuruj boobu muy génn boobu ñuy génn moom mooy safinatu nuux mooy gaaluk nuux gi képp koo xam ni dugg na ci day mucc képp koo xam ne nag dugg ci dafay nekk koo xam ne ku sànku lay doon mu ne lan ngeen leen di laayee biir ci ñooñu. kon de xam naa ñuy lab moom dana bari. ala kulli xaal samay conseil ci jullit ñi ak ci ndaw ñi bu leen génn bu leen dem ànd kenn ku la naan nan génn dem fii dal ci jàkka dugg fii génn di def naan xam-xamub lislaam dañ koy jàng ba xam ko door wëlbati ko di ko tasaare. ci tasaarin wi nga xam ne moom lañ xam yonent bi ak i saxaabaam ñi doon ko def jàkk yàlla yi ñu ngi fi réew mu nekk am nañ lu leen doy sëkk loo xam ne suñ suñ ca taxaw waxuma réew yi sax waaye dëkk bu nekk am nañ lu leen doy loo xam ne su fekkoon ne borom xam-xam ya fa nekk ña ngi koy def dana néew ñuy tal a génn ci dëkk di dem ci beneen waxuma laak nag di génn ci ay réew di dem ci yeneen di wër ne da ngay da ngay def xuruj fi loolu moom jàpp ne lu kenn xam la Euh, waaye li ma ta xam rek mooy ñiy jàng ci histoire jëmmi lislaam ak kuréel yi nekk ci seen biir ñu xam leen dafa bari ay kuréel yoo xam ne dugg nañ ci biir diine lislaam duggiin wu yàgg nag waaye dafa am lu ñu doon dund démb ak bëkka démb ñu dikk indaale ko ci biir diine lislaam ji ku yeex danañ la dugal ci yooya nga dellu ci ak jaahiliya te fekk yaa ngi jàpp ne ci biir lislaam ci nga nekk am na ay kuréel yoo xam ne ca réew yooyee boo demee ci téere bi ñuy wax qissatul xadaara ku ñuy wax Will Durant bind ko muy benn orientalist américain bu mag téere bi mat na quarante tomes civilisation askan yi ci àdduna yépp ma nga ca dalay wax na ñooñu am na ci ñoo xam ne seen diine mooy di génn di dox li ñu tudde asiyaaxa génn di dem rek foo àgg boo fa jógee dem feneen boo fa jógee dem feneen boo fa jógee te loolu ñooñu bañ ko tàmbalee def loolu jiitu na lislaam bi lislaam dikkee dañoo continuer di def noonu am ñoo xam ne xiifal seen bopp lañuy def dem na ba nett li ñoo xam ne dañuy toog di xool jant bi te duñu xef ba seeni bët yàqu loolu lépp nee nañ dañuy tàggat seen bopp bu yaram bi sonnee rek leer gi nekk ci xol bi day daal di jolli noonu lañ ko déggee moo tax luñ mën ci sonal seen bopp ci bitti dañ koy def léeg-léeg duñ sangu mën nañu bàyyi seen i kawar duñ duñ duñ ko wat duñ ko peñe duñ def lenn bàyyi muy lang daanaka kawar yi lang noonu sax nga di ko gis ci lu mel noonu ci la jóge fekk loolu lépp luñ ci jub lu mooy toroxal yaram wi ngir leer gi ci xol bi mën a jolli dem loolu ak réer la goo xam ne ak ceddo la ay nit dugg ci biir lislaam indaale ko moo tax yu bare bari day mat a def attention bitti bi nii day nuuru loo xam ne diine la waaye boo duggee ba ca biir rek gis na am ne yeneen yu ci laxasu njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaam yi dafa leeroon yonente bi ci jàkkaam ji ci la doon toog saxaaba yi ñëw di jàng si ku am jot ñëw jàng àgg na ci ku amul jot sax da ay ayloog sa moroom Omar ibn al doon na ko def radiyallahu taala anhu bu ñëwee jàng si keneen ka dem ca tool yi ba ëllëgee kooku ñëw ci tool yi moom mu dem jàng si ñuy daje ci ngoon gi dors bu bees bu ne mu jox ko ko noonu loolu lañ miinoon ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yi ridwanullahi alayhim ajmain wa xayrul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam نعم نعم شيخنا كي دفن لن موي تخوا يوب جوليت سو فكي دفا ام كين كو فاتو مو خام كو تيم مو نكو دفا بوكو تي اهل الكتاب نيك يهودي ولا نصراني تي موكم ولا لم يبين نعم بنتا كو نيك تي دينم فاتو وا آه دينم دا نكو توب توسول كو امو جي تخواي gënal. xam naa li bëgg a wax mooy ndax daggan na jullit bi ñaanal ko. déedéet ab jullit du ñaanal ab ab bu faatu. mënu koo ñaanal yërmande mënu ko ñaanal leneen bu dee dund daal mën na koo ñaanal hidaaya ñaanal ko yàlla gindi ko waaye du ko ñaanal leneen nag yàlla gindi loolu la ko mën a wax képp bu génnee àdduna mënu ko ñaanal yërmande salaamaaleykum. salaam man li may laaj mooy li comme euh, Dukkure doon wax loolu léegi comme ku mel noonu di wax ci waa yàlla yontam lu ñaaw léegi comme déclaration yi nga wax na buñ ko fekkee ne def na déclaration ba état jot ko léegi état négli négligé ko taxawaayam ci waroon taxaw taxawu ko ci yow boo fekkee boo dajee ak moom yow nga dajee moom. te te mën ko faj yow est ce que amoo kenn amoo léegi bu lan mooy nekk sama waxif loolu moom sëñ Touré du ma ci tontu waaw du ma ci tontu déet dañ koy bàyyi noonu rek bismillah keneen insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh yaa cheikh ñu ngi lay ñaanal borom bi tabaraka wa taala mu gën guddal fan bi ci jaamu yàlla te nangu ko dañuy laajte jullit bi nga xamante ni dafa yore usine yi nga xamante ni dañuy produire aliment yi ñuy dundale euh, mbaam xuux ndax dina dagan ci moom mu yor liggéey boobu wala déet jullit bi produire loo xam ne dañ koy dundale ay mbaam xuux wala ay xaj wala yu mel noonu ñu xam ne mbaam xuux ak xaj ak xeet yu mel noonu liñ xaraamal mooy lekk ko aw yàppam dañ koo xaraamal waaye kenn waxul ne dañ leen a war a rey ñu jóge fi di leen jox ñuy lekk ak di leen sang ak yooyu yëpp chariatul islam xaraamalu ko mbaam xuux ab jullit du ko moom du lekk aw yàppam waaye nag leneen lu dul loolu xaraam gim xaraam taxul ne des koy lottal wala ñu di ko def loo xam ne lu metti la nit ki dugg na àjjana ci ab xaj boo xam ne dafa sonn mar mu jox ko mu naan yàlla jéggal ko ci loola te xaj kenn du ko lekk kenn du ko lekk kon ñàkk gee lekk taxul mu daal di doon lu bon loo xam ne dañ koy rey comme ni ñu rey ab unk wala lu nuroog loola déedéet demewul noona euh, ñi nekkul ci diine lislaam su fekkee ñoo ko moom nit ki mën a liggéey ab xont boo xam ne dañ leen koy jox nii lekk loolu moom dara nekku ci moo di liggéey xontu xaj ñi ci jox xont xaje ñoo bokkub àtte ay muus ak yeneen yi nga xam ne yépp lekk ko dafa daganul ba noppi xëy na am ñoo xam ne amal na leen njariñ parce que lu mel ne xaj am na ñoo xam ne amal na leen njariñ bu baax a baax ci suñ jamono kon loolu incha allah dara nekku ci والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام شيخنا نيغي نيان يالا يالا يالا غودر سافانت اندك وير با دارسي ني تامالي يالا نكو ييغالي سي جام تا فيكيكو با تك ان شاء الله لين لاج موي دانيي يينغو سي غسل الميت سي سانغ اي نيو yenn saay da ngay dem ci l'hôpital yi wala ci ay bërëb yoo xam ne dañ la faawoo yenn saay dañuy dem ci l'hôpital yi mm-hmm. nga gis yenn nit ñoo xam ni dañ lay taklif mbir mi mais da ngay ñëw ñu bëgg laa proposer mbir yoo xam ni wute naag sunna ci sang ba wala ci jëfin ba nga gis yenn mbokk yoo xam ni mën ngeen bokk pas-pas ñu ñëw di la ne comme ay mag lañ garaawul yu mel noonu dañ koy faral di jànkonteel ndax dañoo mësa am kuñ doon sang benn marocain fii ci abbas ndaw seen waa dëkk ñëw doon expliquer ay mbir ne sang bi ñun bu ñuy dañuy jël ay zamzam di ko def ci bakkanu yu ñu mel wax ay mbir yu bari bari façon ma ne ko man nag yéen ma taklif mbir mi fii duma fi lu dul yonent bi jàngale salaay salaam duma ko def duma ko def ñu wax jëm kaw xëccoo ma ne wala ngeen jël keneen mu sang ko léegi mbokk yi ñëw di naan waroo di dëgër ak ñi ndax boo taree yu mel noonu mën nañ di ay gàllankoor léegi ban taxawaay la ñuy sang te mbokk yi di leen taklif ñuy topp nit ñi des fois ndax ay mag lañ te yow xale ngeen ban taxawaay la ci jullit war a am beneen question bi mooy dañuy nekk wala nga jàll ci beneen ñu pare ci boobu waaw ala kulli xaal lu aju ci wàllu néew moom sang baag sang baag suul baag ñaanal ba yépp boo ko toppee foofa toll fu nekk da nga gis yuñ ca dolli yoo xam ne yu ci bokkut la taaliba ilm nag muy ki nga xam ne day yëngatu ci wàllu xam-xam ak leeralal nit ñi seen diine waru garam mooy mu leeralal nit ñi ñoo ñëw ñoo moom seenum néew bokk nga ci ñi koy sang bala ngaa tàmbali defal sa kàddu yu gàtt mbokki jullit yi day mbokk mi tëdd fii sun mbokk la nun ñëpp liñ ko yéene it lenn la noo ko bokk yéene mooy na dem tàbbi àjjana la gën a gaaw nag yoon wi gën a gàtt ci yoonu ajjana mooy yoon wi yonent bi jàngale kon yonent bi bu dee sang néew nii la ko jàngale woon benn ñaar ñett ñeent ba lépp jeex nga ne kon nañ ko tàmbali te fas ko yéenee defe noonu bañ cee dolli dara bañ cee wàññi dara soo defee li yow sa jaan wàcc na boo tàmbalee am ku ñëw indi ndoxum sam-sam di wis wala muy dugal ci kéeg gi mel noonu yow continuer ci sab sang leeraloon nga lépp kooko daa déggul say wax digganteem ak boroomam la yow sa jaan wàcc na maanaam lasta alayhim bi musaytir loolu la yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi mënoo leen a jubbanti ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ne lañuy def kenn mënu ca dara waaye nag nañ ko dégg de nañu dégg li nga xam ne mooy dëgg dégg li nga xam ne mooy yoon suñ ko nanguwul nag loola seen responsabilité la noonu la beneen bi nga ne beneen masala bi moy, ci groupe whatsapp yi mbokk yi des fois dañ fay nekk ñi nga xam mën nañ wute pas-pas ci benn mbokk bu gaañu woon fan yi ñu koy wax ñu gis bëri nañ jullit yoo xam ni dañoo dugg ci armeeri chrétien yi wala ci armeeri ñi nga xam duñu ay jullit ñeneen ñi tamit dem ba ci suul ba ba ci robi ba léegi am benn waaju def vidéo ne yéen ibaadu yi yéen li ngeen araamal dafa bëri kenn ku xam ci alxuraan benn laaya buy wax ni yàlla dafa ñaanal néew ku dee ci lu dul jullit ngeen indi ko lu mel noonu lan mooy àtte bi ci ki nga xam ne moo taxawee noon di défendre koo xam ni du jullit comme moom di xeex mbokku ngir daawu rek moom pas bi maanaam ay ay mbokki sunnit dañoo ànd ci robu ku dul jullit wala. Hmm? waaw. waaw luñ leen doon. Cheikhana huwa nafsu su'al. waaw ala kulli xaal léeg lu mel noonu day am du fii rek léeg-léeg am ku faatu koo xam daa doonoon ku siiw amaana sax nit ñi mën nañ koo bëgg euh, te fekk nekkul jullit mu bu faatoo toujours day indi ay fitna ak i coowaloo ci diggante jullit yi waaye nag ñi xamut rek lay indi coow ci seen diggante waaye ab jullit moom du ñaanal ku dul ab jullit bu xasee faatu bu xasee faatu maandu na ci bàyyi koog waa diineem ñoo koy ñaanal ñoo xam luñ koy defal ñoo xam nañu def ba denc ko waaye yow sa yoon en tant que jullit moom sa yoon nekkut ca loola طيب شيخنا kii dafay laaj ne lan mooy atte yi waajoo xam ni dafa takk soxna ci kaw ëmb mu teg ci ne la waral soxna si ëmb nag moom moo ko seq woon ak moom fekk takk ko wal iyaazu billah nee na waaye ba mu koy takk moom xamul woon ne soxna si mi ngi ci ëmb waaye jur bi ko ko mayit xamu ko woon waaye soxna si moom xamoon na ko luy àtte bi ala kulli xaal masala la moo xam ne eh, boroom xam-xam yi wax ju gudd gudd gudd lañ ci wax mooy nit ki nga xam ne moom moo séq ak jigéen ji ba mu tollu diggante ba noppi mu wëlbatiku takk ko ñu bari ci ñoom dañ ne sëy boobu dañ koy tas ndaw si toog ba keroog muy am doom su amee doom suñ ko bëggee takkaat ñu takkaat ko lenn ci ñoom ñu ne sëy bi mën naa continuer ku mel ne Cheikh Mouhamad Ibn Ousaymin loolu la gën a dëgëral ndax nee na suturaa ngi ci biir te it ginnaaw wóor na ko ne doom ji ci deretam la juddoo jarut ñiy firi ab sëy di jéem a dàq doom ji te xam ne doom ji moo ko jur te luñ kuñ ko waxul doo ko xam ala kulli xaal masala la moo xam ne ak juyoo bari na ci kenn ku ci nekk am na loo sukkandiku loo xam ne ci nga dëgërloo daanaka nekkul masala moo xam ne mu am euh, ak juboo la wala loo xam ne manees na koo sukkandiku ne lii la ndax wax ju dafa bari ba nga xam ne boo duggee ba ci biir daanaka yow mi koy jàngat sax boo yeexee dangay ngay da gëlëm waaye la nga cey mën a génne rek mooy leen mooy doom ji nga xam ne wóor na la ne moom ab ëmb la nga xam ne cent pour cent xam nga ne ëmb bii bi muy am amewul ci ab sëy doom jooju yi nekkul doomi sharia loolu ma a xam la doomi sharia la nekkul ndax nag wóor na ëmb bi wóore na noonu wala agul woon ci wóore noonu wala dañ koo jor tey ji rek am na ku may laaj fii koo xam ne dafa takk soxna ba am ak moom weer maanaam ñeenti semaine mu def test ñu ne ko am na ëmb boo xam ne juróomi semaine la am xam nga loolu benn semaine ak ak euh, ñu yokk ko ci yu mel noonu ak appareil yi ñuy jëfandikoo lu ci bare bari day aaja def ndànk day aaja teey lool moo tax fële ñuy daje ci almajmaul fiq yi sax ñoom dañoo mujj dañoo mujj dàq lépp loo xam ne lu aju ci ay appareil la ay ADN nag yooyu yépp dañ ne wóorut parce que gëstu nañ ko ba gis ne li ci nekk ci ay njuumte dafa bari kenn waru ca saxal aw askan kenn waru ca dàq aw askan appareil yi ñuy jëfandikoo it noonu dong la mel moo tax mbir yooyu yu aaje teey la ba lañ cee dàq aw askan waaye dañuy wax ne su wóoroon wóoroon cent pour cent ne waa ji ci boppam bi soxna sii di wann aw lor booba nekkul cib sëy kooka moom doom ju judd ci lu dut ëpp sëy lay mën a doon léegi nag mu des meneen masala mi ci des mooy li ñu tuddee istilxaq waa ji ci boppam nangu na ne moom moo ko jur te moo ko jur ci deret tamitam yaar yooyu ñu ne bu dajee mën nañ koo ilxaq ci moom maanaam mu nekk doomam mu yor ko comme ni mu yore doomam yi ci des bu génnee àdduna mën na koo doon bu génnee comme doom ndax moo ko istilxaq te it moo ko jur ci wàllu biologie donte juru ko ci takk boo xam ne takkub sharia la masala la moo xam ne mu lënt la li ñu doon gënal ci question yi mooy tànn yi gën a aju ci darsu bi muy wàllu mën ahlu sunna wal jamaa ak wàllu pas-pas fatawa am na yeneen i jataay yoo xam ne fatawa yi gën a yaatu am na feneen fu ñu ko mën a gën a traité moo tax del tànn laaj yi gën a yi gën a jëm ci kii surtout masala yu kii yooyu That's not in minute. Carol mentioned. Wow. Bismillah. tey alhamdulilah ñi ngi ñaanal cheikh bi suñu borom sàmm ko dolli ko tawfiq ba li nga xamanteni ni lañuy la ñu yalla may ñu dégg ak topp damay ñew rek ci benn laaj bu jëm ci wax ji umar ibn Khattab wax ci li nga xamanteni ni moy la uzrata bobu mu wax ndax ci réew mi nga xamanteni ni ci lañ nekk li nga xam mom lañ tuddé al ma'lum min ad din bi darura est ce dinañ ko àtte ci ñenn ñi nga xam dañuy jël lék lék yenn nit ñi di leen tek palaasu yàlla di ko fësal ci kaw mbaa ñuy jël lenn ci àqu yàlla yi di leen ko jox ndax su boobaa ñooñu dañ naan loolu almaalum min ad-din bi darura la dañ leen di jàppal ngànt wala ñoom du ñu am uzru ci loolu nga xamante ni moom lañuy wax mbaa ñu fas ko bu fekkee ne seeni xel lañu àndal day naa ni ñu sàngara junne jàpp leen toxuñu yàmba defuñu lenn loo xam ne moo yóbbu seeni bopp te loolu da ciy faral di am nag su fekkee lenn amu ci ci yooyu su boobaa dañuy jàpp ne kii amul ngànt ndax am xelam la yor te moo ko tey xam na ne yàlla du nit nit du yàlla su askanalee yàlla doom wala mu askanale doom aadama ne mooy yàlla wala moom bind yàlla wala moom sàkke wala wax yu mel noonu laa chàkk ne loolu moom ak génn diine la ba keroog muy duggaat lu dul nag su fekkee daa am lu ko gaar ci wàllu xel loolu moom meneen mbir la والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيكم بارك membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn dakaar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam